de ba intéressant la ñu la Lamine euh, Fils de Balla lu mu wax dafa woote. Fils ma doon dugal ko si ligne bi nee na ma carrément suñ promoteur bu pare pare naa. jeex na combat taxaw na. mais pare naa est-ce que. mu laxa si jaan nag mënu fee combat bu ñu ko jox mu delloo ko. fii am na promoteur moom fi woo mu bëggoon combat moom jox fayee ko xaalis mu aj prix. xaaral kay mais libre kay laa. mu ngi sonné. Fils de Balla pare na original bi original bi. original moom mooy <laughs> sponsor am dembale salaamaaleykum est-ce de Balla Fils de Balla sa combat taxaw na de yàgg Gris ah gaa yi nekk fii nii yëpp nee nañu combat boobu combat bu jaadu la pare nga wala da ruux pare naa pour bëre ñëpp non Gris 2 lañu wax waxuñu ñëpp pare ah. Gris de xam nga ñaata poids lay posé. bu la neexee ngeen jox Lamine avance bi naa la ko kañ. da bis na Balla li nga reeree neex rek mais Gris de moom sa mbokk dina da koy xas ah. bi ah, da koy xas de waaw ko bu caméra yi fayee dafa ni wóorul. wóorul man. non man aw ma ku ma koy jiital. wóorul de. comme Babou Diallo Babou ay xarala. Lamine Gola sa kot. Lamine Gola sa kot bu bu bu Lamine d'accord rek jeex na. bu d'accord nag avance bi jox la Lamine avance bi ko. bu d'accord nag. man eh nee ko ñaari entraîneur yëpp d'accord nañ. man kay pare naa bu neex la ñu ko jox mais Gris 2 Gris 2 il faut ñu woo Gris wax ko si diisaay beeg yooyu léegi mu il faut ñu woo Gris 2. mais Gris 2 diisul ci yow diisul ci yow. mais gars yi nee nañ est-ce que doo doo doo doo laaj ay millions yu bëri pour daw combat bi. Ah, ah, ah. benn promoteur nee na li nga bëri woon ak Lac Rose dina ci yokk 3 millions. xalaatuma ko sax bëri bëri bëri ma loolu sax. waaw kooku moom xaalis xaalis da koy bëri xaalis bu ay wéccate nga wéccati. waaw bu tawul sax yaa ngi woo Giri Ba jarul sax nga may woo sax jarul xaalis boobu jarul sax nga may woo. maa ngi koy wax day tiit tiit. waaw dafa dafa mel ni ko gën waaw merci merci promoteur yi sax dina ci gaaw jamono ji combat amul combat bu chômé promoteur yi dañu bëri. waaw te bëri néew. Mhm. mbër bu ci bëri daan doo merci yaakaar bi dina gaaw a taxaw. merci fils de Balla donc. man euh, bu leen neexal jox entraîneur avance bi ñu ko yóbbaale ñu mën nañu xaar pour bëgg a bëri ak moom rek. en tout cas merci. Euh, si deuxième thème bi. Euh, gars yi joxe nañ seen xalaat si diggante Gris 2 ak euh, doomu dàngu doomu dàngu ñu ngi koy féliciter di ko encourager également parce que lu ñu seere ci moom c'est des c'est des témoignages de sportifs. lu ñu wax ci moom si wàllum sportivité wàllum sérieux dans les entraînements da nga continuer ci loolu défaite bi bu mu bu mu wàññi dara ci yow nga xam ni combat le combat d'hier amul dara lu fa mystique yëpp gars buñ ko analyser carrément ils ont dit que ni c'était une stratégie bi nga xamante ni bu faas moo payé par rapport ak cette stratégie bi nga xamante ni dafa desoon mm. Fadam dafa wax ni c'était un combat de course bi nga demee ba jaaxlee si par rapport ak li nga mën mënoon bu demee ba ñu fàtt bunt bi sa coach wala sa encadrement mënoon nañu intervenir am lu ñu ci dolli. Mm. donc yaakaar naa ni côté boobu noonu boo leen di def réunion critique il faut poser le débat ki nga xamante ni moom mooy fils fils de fils de Balla pare na pour bëre Gris mais Gris 2 man euh, bi même que rëg-rëg di daan j'étais désagréablement surpris parce que dafa doon champion bi nga xamante ni xam na man personnellement ay qualité man demoon naa sax ba critiqué ko ma ne ko tant que gisuma li ma gisoon ci yow dès le début du ma nangu ni Gris 2 yaa da nga da nga sérieux ci say contre Gris 2 contre Reug Reug ñëpp xamoon nañ ni dafa amoon benn camp d' mu sori écurie de Fass mu dem def une une mauvaise préparation te loolu feeñ na ci combat bi mu ngi ñëwaat ndànk-ndànk si wàllum préparation yaakaar naa ne bu continuer si lignée bi il va il va devenir un grand champion te loolu yaakaar naa ne waa Fass dinañ ko dinañ ko si jàppale ñu dugg si beneen thème. Ah, mais adversaire doomu daanguy ku ci nekk war na ci mën a wax une seconde waaw adversaire doomu dàngu ma jàpp naa ni Serigne Ndiaye numéro 2. waaw bokk waaw fils na ci adversaire am. adversaire la. Alioune Seye 2 si adversaire la am de. non nekk fii di ravage. doomu dàngu doomu dàngu Moodu Anta aussi bu Thiès. voilà doomu dàngu. doomu dàngu euh, am na fi ay perspectives de combat yu yi ñu fi tudd maanaam Goro Sok maanaam fils de Balla ci boppam. Jam Téeri ah, Jam Téeri. Ah, ñoom ñëpp ay ay combat ay ay combat possible la te yaakaar naa ne incha allah dina am ay promoteur yu ko contacter parce que déjà capacité de mobilisation bu mu wonee démb loolu dina tax ah, ñu topp ko mm. donc euh, ñi song deuxième thème bi kon jël